kaw parce que xalaatuñu woon dina yegg foofu danaa aussi bon je pense aussi que euh, man à l'époque je disais à certains amis ñi ma mënoon discuter Pastef que même à l'Assemblée nationale que gars yi moytu leen leen dafa am fu ñu bëgg dem ak yéen te bu leen leen yombaral. dañ leen tendre piège. fu ñu bëgg a dem ak yéen te boo bëggee. Euh, yor réew jiite réew nekk ci ay institutions comme assemblée nationale am na ay postures yoo xam ne boo ko defee rek da ngay faciliter mbir mi gars yi <laughs> parce que euh, boo toogee ministre de l' intérieur toog ministre justice toog ay généraux toog seen ministre de des forces toog ay généraux toog seen ginnaaw nga wax leen assassin sàcc ngeen nangam nangam règle règle bu xam nga sànq maa ngi wax ak état bi di wax règle règle de courtoisie d'élégance bu assemblée jox bu la assemblée exiger pour que nga mun a am dignité bu ñu la wax honorable aar la ba nga xam ne gendarme bi mënu la laal bien que yaa ngi koy saaga wala yaa ngi saaga supérieur am ak keneen keneen loolu moo la war tere nga jël yenn posture nga ci benn façon discours bi. posture bi. là vous parlez de Guy Marius Sagna. non je parle de, de manière générale de tous ceux qui ont cassé des meubles euh, bone kii. ci loo xam ne parfois il faut le reconnaître man <laughs> je l'ai dit le jour de l'installation de l'Assemblée nationale mais li ñu tegee règle yi pour dem aux élections mais c'était la la règle mais, mais c'était la règle c'est-à-dire que nit assemblée bi newee nañu defee élection ci ouverture législative loolu moo doon jaadu gisuma woon gisuma ci woon benn gàllankoor. gisoo ci benn entorse la règle. gisuma ko je l'avais expliqué mais même boo amee entorse duni damay taxaw ci table yi damay amuloon entorse ci sama gis-gis mun nañ ci def débat mais sama gis-gis je suis libre aussi il faut reconnaître aux gens dañuy nangul nit ñi nga am kii gisee nii kii gisee ne kii gisee ne le parce que <laughs> je rappelle man j'étais dans le bokkuma gars yi gis-gis ci yenn yi je le dis donc bu ma nekk opposition bu ma ne bokkul gis-gis dama koy wax mais bu ñu ma saaga. la différence c'est que Macky Sall saaga pour kii wala wala wala menacé ma wala gëdd ma je le connais donc gars yi bu ñu leen xëcc ci benn kii bi il faut il faut aussi man wax naa ko wax discuter naa ci xam nga man du mu bokkuma ci ñoo xam ne gars yi dañuy jàpp ni way waa ji non discuter naa ci ak ña ma ci mënoon discuter moytu leen li fi ngeen fi ngeen parce que aussi j'étais de l'autre côté parce que même bu ma neewul woon de l'autre côté war naa xam état la ma war la mu war a nangu wala lu mu warul nangu géné ab général du toog amul droit la grande muette amul droit à la parole amul droit kii wax ko loo xam ne mais saa waay man boo ma ko waxoon bu ma la mënee régler sa compte ma régler la sa compte donc faut dire que réew mi dañu toll ci situation boo xam ne y une frac y a, y a plastique yoo xam ne mënutuñu dafa mel ni mënuñu déggoo mënuñu toog mënuñu bokk mënuñu bokk ndab mënuñu discuter ci dara